bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadiyihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkel ci bis tedd bi di bisub ajjuma di ñaar fukki fan ci rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett di dellusiwaat ci waxtaan woo xam ne ajjuma yi weesu sunu bokk yi nga xam ne ñooy toog ci jataay bi di laayante biir ak yéen waxtaanoon nañ ci muy azaka waaye xam ngeen ne gaaw bi weesu rek sëñ bi dafa joxe ndigal ndigal loo xam ne la mu wundu moo di taxawal lu ñuy wooyee kër asaka yi nga xam ne gaaw ca ngoon lañ ko doon siiwal di ko jottali waa réew mi ak waa àdduna muy lu am solo loo xam ne moo waral ñu dellusiwaat di ci wax waaye daanaka lu ci matoon a wax rek bokk yi jiitu waxoon nañ ko waaye dañuy dellu rek di waxaan ne asaka moom kenn mënta lay ba wax lu dul wax rek ne ponkub lislaam la boo ne ponkub lislaam la rek wax ji ferenklaayu ndaxte alquran da koo andi sunna andi ko boroom xam-xam yépp maase ci alquran tudd ko lu baree baree bari tudd na asaka fanweeri yoon yoo xam ne da koy ber boole na ko ak julli tudd leen ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar wax na ne wa aqimu salaata wa atu zakata warkau maa rakiin bu ñu demee ci sunna ngën ji mi def dafa wax ne lislaam su doon euh, mbaar moo xam ne ay kenu moo ko téye ay jën moo ko téye juróomi juróomi jën ñoo ko téye ba leen di lim da caa boole joxe asaka boroom xam-xam yépp itam maase ci ne azaka farata la te it ponkub lislaam la sëriñ bu mag bi foofa rek la jaar wax ne islaamukum yaa ayyuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikrul ilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun moom itam juróomi jën yi nga xam ne ñoo yenu lislaam mu andi ko ci bayit ñaari bayit yooyu asaka nag doonul loo xam ne nit ki ci mbaaxam rek akuk laa biiram da koy génne rek jox ko ña ko soob waaye day loo xam ne da koo sëñta bañ ndax bu bañ ne farata la la la la la wax ji jeex bañ ne ponk bu lislaam lislaam la wax ji jeex kon da koo sëñta bañ ndax yàlla da cee gàll ab yar te su ko génnee yàlla du ko jariñoo waaye da koy delloowaat ci ay bokki jullitam jaamoo ko yàlla ndax mën nañoo jaamu yàlla ci jaami yàlla yi asaka suñ ko dee joxe nam ware dana tax ñàkk wàññi ko lool dana tax ñi amul liggéey ñu bari am liggéey dana tax ñi seen bët xonq ñu mën a fomp seeni ronqoñ dana tax jirim yi ak baayo yi ñu am ñu leen saytu dana tax daal ba jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci jamono lu ci bari dana mën a saafaraw ndax nit ñi dañoo war di geesonte di bàyyante xel yàlla mi leen sàkk ba koo seen xàmmee ko ak moroomam ndax dañuy wuute ki dafa day njool kii day gàtt kii day xees kii day ñuul noonu ñu wuutee seeni man-man ak seeni am-am ak seeni pexe ak seeni dugg-dugg noonu lay wuutee moo tax yàlla waxoon ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi risq soo ko defee kon ñu xam ne ponkub lislaam la soo dee baykat soo liggéeyee ba far mànku na nga xam ne la nga bay su matee nisaab asaka da caa war te sooy génne asaka ja fukkeel ba ngay génn loo wàññi rek juróom-ñeent fukkeel ba nga jox ko yàlla gannaaw am nga nisaab bu dee jur bu dee jur gu gàtt gi soo ca amee ñeent fukki muy xar muy bay nanga xam ne am nga nisaab asaka da caa war bu dee nag soo ca amee fanweer nanga xam ne am nga nisaab asaka da caa war boo dee yaxantu nag di commerce di jaay ak jënd moom itam soo amee nisaab nisaab bi nga yor ko ren ba déwén na nga xam ne asaka da caa nisaabu nag kii commerce di yaxantu di jaay ak a jënd ak lu mën a jaay ak jënd gannaaw loola dafa dagan na xam ne suñ koy xayma ci wurus lañ koy xaymaa te buñ ne wurus nag or mooy or or nag dafa am kara yu bari waaye ba ñuy wax vingt-quatre kara ca lañ koy xayma bu fekkente ne li nga am daal téye ko ba déwén man nga cee jënd juróom ñetti fukki garaam ak juróom yu or 24 carats na nga xam ne am nga nisaab kon 85 garaam ci or 24 carats soo ko mënee jënd am nga nisaab te jii di ajjuma di ñaar fukki fan ci rakki gàmm biñ koy gëstu dañoo gis ne benn garamu or 24 carats mi ngi jar juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti téeméer ak ñeenti dërëm ak ñetti 15 juróom-benn junni ak juróom ñetti téeméer ak ñeenti dërëm ak ñetti 15 mooy garamu or 24 carats loolu wax nag. moom ngay multiplier ci quatre quatre vingt cinq grammes yi ñu waxoon léegi mu jox la deux millions huit cent quatre vingt douze francs CFA kon ku am deux millions huit cent quatre vingt douze denc ko ren ba déwén loola mooy nisaab war nga caa génne asaka boo ca génne asaka nag loola danga koy séddale ñeent fukk da koy diviser par quarante soo ko defee Euh, lu mu la jox mooy asaka ja nga war a génne kon daal kiy jaay ak jënd su amee nisaab ren ba déwén day xayma la mu yor ca marchandise seet la mu denc ca xaalis loola lay boole gannaaw nissaab la moom lay diviser par quarante la ca génn loola mooy asaka ja nga xam ne moom la war a joxe sudul Absolument الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kon daal ki nga xam ne day commerce baana baana daal wala muy yaxantu ak noo ko mën a tuddee su amee ñaari million ak téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti téeméer soo ko amee ren ba déwén na xam ne am na nisaab su amee lu ko ëpp nag mënta wax su ko defee nag loolu lay séddale ñeent fukk maanaam da koy diviser par quarante lim bi ma wax léegi rek su ko doon génne asaka mi ngi ciy génne fukki junni ak ñeent ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk xam nga ne am ñaari million ak juróom-ñetti fukki junni ak lu topp téye ko ren ba déwén yàlla laaju la ci lu fukki junni ak ñeent ak weccet loola sunu borom dala bëgg yërëm waaye bu fa gënoon a diisit nga war ko jiim am na ñoo xam ne nag bu buñ ne azaka dañ koy woyofal te bu julli jotee ñu julli su woor jotee ñu woor waaye nañu xam ne ni julli doone ponk lislaam ak woor ak dem màkk nii la azaka doone ponk lislaam te bañ koo joxe dafa am lu jur am na lu muy jur ci àdduna am na lu muy jur ci àllaaxira bu dee ci àdduna xadis ba nee na nit ñu téye seen alal ne duñ joxe asaka suñ borom nattoo leen bekkoor daal ne bu lu woon ak bahima yi kon sax dootu taw kon sunu borom dafa ñeewant jur gi moo tax muy taw waxaat na ne képp koo xam ne da nga koo joxe ngir yàlla rek ak sàkku tuyaabo e, yàlla nangul la ko waaye nag soo gàntoo ne doo ko joxe dañ koy foqar ci ci yow te du duñ ca yam la nga am lépp tam dang koy xaaj ci digg ba foqar ci ko ba nga xam ne yàlla ay waxam waaw rek la sant bu doon jamono joo xam ne sax lislaam dafa àgg fa mu àggoon ci doole mbooloo mu gantu ne duñ joxe asaka dañuy xeex ak ñoom dañuy dal ci seen kaw ndax Abu Bakar ne as-Siddiq mos naa xeex ak mbooloo moo xam ne dañoo gàntu woon ne dootuñu joxe asaka am na ñoo xam ne nag dañoo xamul moo tax duñ ko joxe am na ñoo xam ne seen seen yëngu ak seen liggéey dafa yaatu ba tax duñ am jotu di ko génne waaye loo ñàkk ñàkk jot ni nga tale adduna soo ko talee sa borom rek da nga jëf li mu santaane joxe azaka nag dafa bari lu ci aju mooy jëf ko ndax li muy santaane bi yàlla rek jar na ko jëf ko ngir muy wane ne yow sa alal yaa ko moom waaye moom moomu la am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom nga fexe ba bañ caa bokk yow nga moom sa alal jëf ko ngir mu fóot sab xol ci jàngoroy nay wa man yuuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun jëf ko ngir nga tàggatu ci joxe ab jullit rawatina ab taalibe dafa war a tàggatu ci joxe wa mimma razaqnahum yunfiqun jëf ko ngir xam ne danga nga war di ñaq dafa am santaane yoo xam ne ñaq la laaj sa jëmm mooy sonn waaye dafa am santaane yoo xam ne ñuqi la laaj mooy nga làmb si ji sa jiba joxe ngir jëmmi yàlla jëf ko ngir xam ne li nga yor moomoo ko suñ borom dala koo dénk jëf ko ngir xam ne moo lay sàmmal sa alal xadis ba nee na xasinu amwaalakum bi sadaqa nee na su ngeen bëggee ñàkk seen alal aar seen alal day leen ci génne àq yàlla dee ko joxe ngir bëgg sa alal yokk ndax joxe du tax a ñàkk di ko di jàll nag di jàll di jàll defe ne sooy jal day tax mu bari te su baree da koy jël jal ko jël ko yombut wa ma am wa ma aataytum min riban li yarbu fi amwali nnaasi falaa yarbu inda allah wama wama aat wama anfaqtum min cheyin te kon la ngay jàll yàlla amu ca soxla waaye li ngay joxe te yàlla tax loolu am soxla deko ko jëf ndax day tax nit ñi sopp la nit ñi soo leen amalee njariñ dañ lay sopp dañ lay ñaanal ndax koo xam ne soo amee mu am day ñaan nga am koo xam ne soo yokkoo mu yokk day ñaan nga yokk moo tax da ngay jox nit mu ne la li ci des yàlla na barkeel da lay yéene la nga yor te da lay ñaanal nga gën koo man te ñaare ki ëppal nit njariñ day gudd fan te lamu man day yokk wa amma ma wa amma wa amma ma yanfa'u naasa fa yamkusu fil ard nit nag su dee liggéey na fexe ba sàkk lu lew la ñu santaane waaye di ko fàggoo nam la neexe di ko fàggoo ci anam gu araam ba am ko nag bëgg koo def ci asaka walla ci jaamu yàlla yi sunu borom du ko nangu ndax yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba foo gis ñaari alal ju sànk ju laatu na nga xam ne ñàkk a joxe asaka moo ko waral yonent bi neen alayhi salaam ma talifa maalun fii barrin wala fii bahrin illaa bi xabsi zaka nee na foo gis alal ju laatu ci jéeri wala ci géej na nga xam ne ñàkk joxe asaka moo ko waral boo ne man de daanaa ko joxe te teewul sama alal laatu na amaana nga dend ak koo xam ne du ko joxe te ñax gu la waw day lakkaale ñax gu tooy amaana it muy am nattu rek boo xam ne yàlla ma la ko teg moo xam la tax mu teg la ko boo dee joxe asaka di ko jox ña ko yelloo day tax euh, seen xel dal te bu seen xel dalee ñu tala jaamu yàlla nit ki bu xëyee di kër kër yi di wuti lum am amaana du tal jëfe ndigal wala bàyyi tere waaye su xel ma dalee rek dana tala jaamu yàlla di def la mu santaane bàyyi la mu tere moo tax mu ni fal yaabudu rabba hada al bayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf ba ñu demee ba seen xel dal ñu boole mucc ak mos rek dañuy daale tal yàlla euh, moo tax nag sëriñ bi joxe ndigal ne nañu sos lu ñuy wooye kër asaka yi di ko laaj ndax asaka doonul loo xam ne dañu ko daan bàyyi rek ku mu soob joxe wala nga bañ a joxe dana xut xud min amwalihim la wax na nga jël ci seeni alal sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka dañ koy laaj sëriñ bi nag nekkoon nañu sos mbooloo moo xam day laaj asaka am nay numéro téléphone yoo xam ne ku bëgg a xam looy joxe soo ca wootee ñu wax la ko man day am naa nangam bay naa nangam laa am man day damay jaaye nangam laa am wax la ngay yëngatu wax la nga am ak ba nga ko amee ndax mat na ren ba déwén ñu ne la ku am nangam nangam ngay joxe ñu ne la su ma ko bëggee joxe nu may def ñu ne la nii ak nii ak nii ngay def ba joxe ko su ko defee ñoom buñ ca jotee nag na ñuy def ba seeni borom jot ca ñoom xam nañu ko ndax asaka bokk na ci li muy saafara nit ñi am lu baree baree bari euh, seen giirug dund ñii ñàkk seen giirug dundu lislaam dafa bëgg loola wàññiku su ko defee da ngay doon ab surga tey su ëllëgee nga doon njaatige asaka suñu ko joxee nañ ko war a joxee da nga gis koo xam ne buñ ko ko joxee ren bu déwénee moom day joxe asaka waaye def ko weccet di joxe pari junni wala ñeenti téeméer ña ngi koy jox duñ ko jariñoo da ngay jox nit ki loo xam ne dana ca mën a liggéey ku jàng mécc ba mokkal te amul lu mu def ndax amul ay moyen nga fexe ba mu am ay moyen di liggéey su boobaa yalwaan mi dana wàññiku taxawaalu bi dana wàññiku ñi bëgg samp kër te munuñ ko dana wàññiku ñi amul fu ñu dëkk di fanaan ci mbedd mi dana wàññiku su boobaa daal mbooleem li nga xam ne ay gàllankoor la ci jamono dana wàññiku su boobaa sax danga gis ak bokk gu yàqu woon dana defaru ndax soo amee sa loxo jot sa ginnaaw ngay seetaan say bokk doo leen dimbale buñ la ko waxee ak buñ la ko waxut dañ lay jéppi dañ lay mere nit dafu fonk boppam soo ko fonkee mu fonk la soo ko geesoo mu bàyyi la xel soo ko dimbalee mu ñaanal la nañu xam ne itam li ñuy wax fu lislaam da ko santaane fu mooy lan mooy nga wut luy jur alal ne jox naa ko yàlla tabax ab immeuble bu mag ñu ne def naa ko addi jox naa ko sëriñ bi mooy jox naa ko yàlla ndax sëriñ bi loo teg ci loxoom teg nga ko ci loxol sunu borom su ko defee nag muy loo xam ne la cay roose ci alal kër asaka yi moo koy jël di ko def fa nga xam ne fa lañ ko war a def kon daal képp koo xam ne am na loo war a laaj soo laajee ñu tontu la soo am loo joxe soo joxee ñu jël ko defal la ko nag fa nga xam ne fa lañ ko war a def waxtu wi moonu dab waaye li ñu war a leeral des na ñu ngi ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala mu sàmmal na sunu kilifa gi xalaat bu rafet bi mu def nga xam ne ca jamono saxaaba ya moom lañ doon def mooy di ko laaj di ko dajale di ko jox ña ñu ko war a jox ndax ñi koy laaj ñoom xam nañ fa ñu ko war a dugal xam nañ ñi ñu ko war a jox ndax wa fi sabilillahi ci sax naal bii mu naal rek mën na caa tàbbi muy di ko def ci liggéey bi nga xam da koo sumb kon yàlla nañu yàlla sàmmal sunu kilifa guddal fanam tam doole ko wér ba lépp lu mu sumb rek yàlla na ca am ndam tenu nu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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

الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعم العوالم كلها جودا وكرما وحلما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرفيع المقام صلى الله عليه وعلى آله الأعلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبادروا بلحاف التوبة قبل انغلاق بابها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 جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه وأشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقرب المقتفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من والاه وانتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا أيها الناس من كرمت عليه دنياه هان عليه دينه ومن غلب عليه هواه ضعف لا محالة يقينه ومن قصر نظره على زهرة الدنيا العاجلة خسر وخاب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 أضر بدنياه ألا وآثروا ما يبقى على ما يفنى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين من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 السلام عليكم السلام